salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñi ngi dellu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di leen baalu àq di leen baal àq tey ñaan yàlla baala ñu jégal ci weeru koor gi ñu nekk di remercier ñëpp ñi nga xam te ni si ñooy suivre suñuy vidéo te di ñu encourager ci li ñuy def di leen wax aussi comme d'habitude képp koo xam ne am nga xalaat ki li ñuy wax mën nga ñu ko envoyé par message vocal ci sunu whatsapp moo nekk numéro bii di affiché comme ça dinañ ko jàllale ci kàttanu borom bi également ñëpp ñi nga xam ni dañuy yëngatu ci njaay am lu ñuy jaay bëggoon mu am visibilité bëgg publicité bu ñu contacter aussi dinañ ci waxtaan ak ñoom incha allah. tey nag waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo analyse cette fois ci nag vidéo bi ñuy def. ñu ngi koy def ci benn série bu bees waa Evenprod di dawal ñu koy woowee Mœurs la brigade des femmes mu nekk série boo xamante ni si liñ ci gis mooy day xeex ni ñuy néewale doole jigéen ci anam yépp nag parce que dañ gis ni série bi li muy xeex yépp pratiquement ci loolu la jëm maanaam loolu moom mooy seen thème principal ba su ngeen xoolee brigade bi ànd jaxawal sax ñoom ñëpp ay jigéen lañ bu ñu seetaanee nag épisode yi mujj dañ ci gis ñaari point bi ci njëkk bi ëpp lu ñuy joué muy cadre viole te viol dafa nekk benn phénomène boo xamante ni si dafa bëri trop trop trop ci dëkk bi et récemment sax démb rek ci guddi maa ngi jot benn audio benn message ndeysaan mooy doomu DG bi nga xamante ni si dañ ko sàkku ba pare ray ko bàyyi ko ci kër gi di ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yërëm te xaari ko àjjana donc mu nekk ay cas yoo xamante ni si dañ koy gis lu baree bëree bëri. gis nañ également ci biir série bi am na ci cas boo xamante ni ci kaw jànq bi doon liggéey ci kër gi la dal mu doon ci avorté far yàlla jël ba kanam donc premier point bi nga xamante ni si lañ bëggoon a waxtaan mooy cadre viol. et suñu deuxième point aussi tamit dinañu wax ci cadre jigéen ñi nga xamante ni si nii ñooy summee ko di photo wala ñuy def ay vidéo di ko envoyé soit seeni copain wala seeni jëkkër parce que dañ ko gis aussi tamit ci série bi am ci xale bu jigéen boo xam ni dafa defoon genre yu mel noonu envoyé ko jëkkërëb ëllëg mu xëy gis affaire yi mu nekk ci net bi donc mu doon ay cas yoo xamante ni am na ñu bëri yàq na seen vie mais tamit lu jar moytu la. donc bu ñu ñëwee ci premier point bi mooy bi nga xamante ni moo jëm ci viol viol dafa nekk loo xamante ni si nii pour l'instant nit ñi dañ ko banaliser chaque jour que jëfee boo xëyee di nga ci dégg benn kaa parfois même tu demande demandes ñun exactement ci ban réew lañu nekk chaque jour boo xëyee di dégg ay ñaawteef yu bees te li ma jaaxal ñaawteef yooyu noonu day gën a yokk parce que heure boo xëyee di dégg yoo xamante ni da gën a yéem alors pour man il est temps côté boobu ñi nga xamante ni si ñoom seen liggéey la ñu jël ci ay matuwaay yoo xamante ne si dina tax phénomène boobu wàññeeku ci dëkk bi parce que yàq na àdduna ay nit yu bëree bëree bëri bu ñu jëlee kaawu xale bi demoon ci kër gi di liggéey ñu sàkk ko ci biir kër gi après par la suite mu jëlee ci ëmb ñu di ko aborté loo ba mu jaare ci ñàkk bakkanam dèjà yow ki nga xamante ne dafa ñëw sa kër di la liggéey yor la sa liggéey kër boo ko mënta considérer comme doom au moins nga jox ko cëram mais nit di ñëw di liggéey sa kër nga di ko xool yenn bëti ba yegg ci kawam après li ma ci gën a métti mooy du mujj fenn parce que dañ naan la maa la ëpp xaalis maa la ëpp lii boo demee fenn tamit du mujj fenn donc franchement ça fait très mal viol moom dafa nekk loo xamante ni fi mu toll nii dañ ko banaliser boo ko dee dégg sax day dem ba dootu la defati benn effet parce que lan da ko yàgg a dégg mais li muy détruire ci ay vie dafa bëri trop parce que nit sàkk nañ ko fi mu am ker sax dem xaru nit sàkku nañ ko fi mu jële ci ëmb dem di jéem a jaare fa ñàkk ba kanam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni si bëri na kon nag ñi ngi ñaan ñi nga xamante ni si ñoo yor liggéey boobu ñu gën a dëgëral sanction yi ba képp ku ñu jàppati ci cadre viol ñu teg la sanction yoo xamante ni si nii bu ëllëgee dootoo ko xalaati defati te keneen ku ko dégg aussi tamit bala muy defati lu mel noonu dina ci bàyyi xel bu baax a baax donc loolu moo nekkoon suñu premier point sunu deuxième point mu jëm ci wàllu ñi nga xamante ni si nii rawatina ci jigéen ñi parce que lu ci bëri ñoom lay dal ñooy summeeku wala ñoom ñooy jël yenn vidéo yi wala yenn photo yu xaw a doy waar di ko yónnee seen i copain ou soit seeni i jëkkër ak bu mu ci mën a doon man je me ni jaaduwul parce que tey on ne sait jamais àdduna dafa gudd tànk ndax bu ñu jëlee exemple bi nga xam te ni moom moo daw ci série bi ki ko def boroom këram la ko envoyé woon xaw ma nag nu mu demee ba après photo yi mu retrouvé waat ci biir net bi xëy na loolu après dina leer ci épisode yi di ñëw mais man gis naa ci benn exemple nit ku doon sëy ak nit def photo yu mel noonu yónnee ko ko ñoom ñaa ñu tas jëkkër di jël photo yi publier ko déjà man ki nga xamante ni moo publier photo yi kooku laay njëkk waxal parce que dama déglu benn waxtaanu oustaz Alioune Sall muy wax ni tey ci lislaam dañu préféré bu ñu la envoyé lu bon wala soit mu nekk photo bu bon wala vidéo bu bon mu leen la lii ni lu bon la bu ko tijj na ko supprimer directement comme mooy message yi ñu jot suñu whatsapp yi nii jot benn vidéo rek commencé ko liir partager ku ne di dugal ku ne di estatu naan ay sama audio deux minutes bi ay sama vidéo trente secondes bi bëgg ko def loo xamante ni si comme dañuy def lu baax te li oustaz Alioune Sall wax mooy que boo jotee lu mel noonu mu leen la lii lu bon la bu ko tijj bu ko liir na nga ko supprimer directement wala tey boo juumoon ba lire ko te xamoon lu bon la tamit soo paree na nga ko supprimer yam foofu noonu ndax tey bala nga koy publier xalaatal tey bu nekkoon ni sa waajur la wala bu nekkoon ni sa mag la wala sa raq wala koo xam te ni dafa bokk ci yow est-ce que di ko publier boo xalaatee foofu rek kon ki ngay dugal noonu vidéo am doo ko def wala ki ngay dugal photo def kon yéen ñi nga xam ni yéenay publier lu mel noonu di ko tasaare. ngeen di xalaat des fois que ce que bu nekkoon tey jii sama mbokk la est sama sœur la est-ce que bu nekkoon tey sama waajur ce que dinaa ko def soo xalaatee foofu rek doo ko def mais tamit bu ñu jógee ci loolu ci jigéen ñi nga xam ne ñoo koy def ñoom la ñuy waxal ndax tamit je pense que ni source bi ñoom la parce que loolu boo ko deful woon du agsi foofu yëpp kon li gën mooy bañ ko def ndax yaakaar naa ko fotowul wala nga filmer sa bopp def yaramu neen doo ko gis ci net bi kon si fois ngeen arrêté loolu rek phénomène bi dina jeex mais parfois nag am na ci jigéen ñoo xam te ne dañuy topp seen bëggeel wala mu nekk seen diggante ak seen boroom kër lu ñu leen wax rek ñu def lu ñu sax mesurer conséquence yi ëllëg nag ñu gis seeni photo muy circuler seen àdduna yàqu ñu door a xam ni kat man li ma doon def ndeke fii la ma mënoon a indi moo tax il est temps que ñu leen di conscientiser di leen wax ni carrément loolu noonu ku koy def ëllëg mën nga ci am mbetteel bu réeree ndax jikko yi yamul te àdduna dafa tërëri man nga nekk ak nit ba yaakaar ne du ngeen mus a bàyyante lu mu la wax nga def un jour ngeen bàyyante moom tamit mu am benn xol boo xamante ni xolu rancune la mu jël say photo wala say vidéo wala lu mu la xamal mu tasaare ko moo tax parfois aussi tamit su ngeen nekk ci dara di ngeen ci war dem ak seen xel mais du lépp lu ñu leen dugal rek ngeen dugg ca parfois tamit day baax ngeen di sóoraale ëllëg gis nañ ci tamit ñenn ñoo xamante ni ci ñoom dañuy préféré di photo seen téléphone di photo yenn photo yu doy di ko garder. même bu ñu ko envoyé wul kenn tam ñu ngi koy garder mais yàlla dana nattu ëllëg sa téléphone réer nit for ko gis ci photo yi tas ko parce que am na ci cas yu mel noonu yoo xam te ne gis nañ ko wala sa téléphone paan nga dem di ko defarlu ki koy defar mu gis photo yi jël ko di la chantage wala mu jël ko jaay ko donc dafa doon loo xamante ni si pour man nga bañ ko def bañ a photo mooy li nga xamante ni si moo gën mooy solution bi mais si toutefois yaa ngi koy def rek ëllëg lu la ci daal. donc loolu message la boo xamante ni sii ñu ngi koy lancé bépp jigéen ngeen bàyyiwaat xel bu baax a baax ci cas yi mel noonu parce que dafa doon loo xamante ni si nii bu xasee ba rëcc rek ba génn rek dootul deñ te xalaat leen ni ëllëg dangeen am njaboot te internet bi lu fi dugg fi lay des ëllëg seeni doom mën nañu màgg di gis loo xamante ni sii seen yaay la jógee du leen neex mën na dem sax ba affecté xale bi mu am dund boo xamante ni sii du doon dund bi mu waroon am dëgg dëgg dëgg donc am na yu bëri yoo xamante ni si boo koy def da ngay sóoraale ëllëg comme ni ñu koy waxee rek ëllëg du añ du reer mais lu mat a sedd la donc tey loolu moo nekkoon suñu vidéo ñu ngi dellu encore une fois di jégalu ñëpp liñ fi wax képp koo xam ni laal na la ñu ngi tub bu baax di jégalu bu wér a wér a wér te xam ni liñ ci jublu woon rek mooy jàngale ci yeete ci lépp loo xam ni jub na fi ngeen xam ni ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la ndax nit moo matul. di leen jox dig daja ci beneen vidéo incha allah merci à tout le monde